liberté de circulation donc nag ñoom ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañoo yore la voix des sans voix war mën a ñëw jóg jóg taxaw dem taxawu leen ci seen doole ñu dugg yëpp wax nañ ko jëluñu leen moyens de l'État c'est sur fonds propres que lañ jël li ñu mobiliser ci carburant ci moyen de moyen de transport ci seen doole yi ngeen yóbbu pour mun leen jàppale ñu leen du fi am mais nañu xam ni ko fii ay ragal bu yeboo jàppale ci yow yow madame madame Fall yow en tant que directrice de campagne yaa war a def la programmation euh, campagne électorale bi nga xam ne dina tàmbali niki niki le 27 lan moo war a doon tey la réponse politique boo xam ne mu nekk xaar sur la coalition sàmm sa kàddu pour ñu apporter ko face à à l' acte bi ñu bi ñu tey. waaw xam nga xam nga réaction politique bi mooy xam nga lan déjà que nous ne puissions pas être déroutés par rapport à nos parce que ñii ku ñu perte te ñun lii fexe bëgg ñun li fi ñuy war toog dinañ fa toog li ñuy waxal dañ ko def pour continuer suñu suñu ligne de conduite li ñuy ne dinañ ko def conduite bopp mais ñu war a réagir politiquement par rapport à ça dinañ ko def ndax mot nañ ko te mën nañ ko. Ngok. d'accord jërëjëf jërëjëf nay l' intervention surtout mu doon une euh, dame après mooy fàttaliku ku Iyane Thiam moom it intervenir na euh, ci turu coalition jàmm ak njëriñ parce que caractère bi tamit am na euh, volet boo xam ne c' est non négligeable gis nañ ne Anta Babacar bi ñuy waajal fii rek ci Dakaaru gazé woon nañ ko fii tey mu ñu bru violenté ko au niveau de Bakel jigéen la je pense que ne yooyu ay avancé la yoo xam ne dañ ko war di doon je pense que je vais de de Pape ce que tey euh, bu fekkee ne dañuy dañuy duut baaraam yi les de la presse bu ko Ousmane Sonko taxawee am benn fu ñu catégoriser est-ce que ñun aussi tamit on n'a pas le flanc est-ce que ñun on a été équidistant du euh, de l'opposition et des pouvoirs jëluñu woon position benn moment ba nga xam ne fi ne nii suñu crédibilité dafay posé wu ci yenn yenn dossier pour ñu wax ci à l'aise mais xam nga loolu tout dépend de la personne bi nga xamante ne yaa def sa liggéey parce que à un moment bi ñuy taxawee passe dans une démocratie loolu nag dafay bokk ci gis nit ki mu am gis-gis xam ku ci nekk lan mooy sa ñun bu ñu daan dem ci manifestation gàddu ñu ne xet gàddu ñu on avait parce que on a constaté qu'il y avait des violations et par-là et il fallait tenir compte de cela pour dénoncer ko en son temps on l'a fait avec beaucoup de fierté et si c'était à refaire mille fois on allait le faire parce que loolu mooy suñu liggéey maintenant nag nit ñi ñooy changer position di Ousmane Sonko ba muy def première conférence de presse am ak coowal Adji Sarr maa ngi toog ba fi may wax ak yow ni amul dara ñu ump ci dossier bi kon lañ doon xeex boobu ba tey c'est-à-dire c'est les mêmes choses qui sont en train d'être voilà et les gens sont restés constants dans ce qu'ils font moi je suis à may wax nii parce que aw ma ci problème mais dama ne c'est-à-dire lañ doon wax ci lañ leen doon xañ ñoom ñoom loolu lañ ñu commencé xañ ñii amul différence et mieux encore parce que Macky Sall sax benn je me rappelle am na tournée boo xam tibb tànk bugaan koo xam-xam ne tibb tànk je pense que ñun bokk nañ ñoo xam ne tibb tànk dafa bëri trop sax. Ah. Euh, dem nañ ba ba ba Kanel. Macky Sall mi yoon biir Kanel. mais terewul bugaan dañ ko bàyyi mu dugub mais dañ ko ne da ngay wàcc tali bi parce que pour des raisons de sécurité du président de la République. ñaari ñaari cortège mais waxuñu ko benn yoon ni. Macky Sall mi ngi Kanel wala Macky mi ngi Matam doo dugg Matam loolu amul fenn bu fekkee am na texte bu ko wax tam nañ ko nañ ñu ko woon et c'est ça président Diomaye à euh, Bakel cela n'empêche en rien Bougane wala un autre acteur politique mu dugg bi parce que ñoom Bakel moomuñu ko mais ñoom seen bopp ñoo doon taxaw fii naan euh, dañu leen ñu ne woon Matam du titre foncier du titre foncier Macky Sall dinañ fa dugg heure bu leen neex nañ fa génn heure bu leen neex pour pourquoi aujourd'hui il veut il la, voilà. les mêmes mu nga ma def dernier tour de table il nous reste quatorze minutes fu mu nekk nii pour ñu lever le le, le plateau fàttaliwaat la bonne information mooy le président Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp les jàmbaar ba tey mi ngi ci loxo gendarmerie nationale bu bu Bakel nanguwul audition bi parce que dafa bëgg ay avocat am balaa ñu koy laaj ñu mun koo fekkee loolu la ko loolu la ko yoon may euh, Assane Diouf xam naa certainement avant dernière question euh, lay doon gis ne mu doon nga nekk États-Unis wala nga doon euh, Sénégal nekk Sénégal yëpp sa taxawaay. taxawaay ci li nga xam ne moom nga moom nga gën jamono ji nii euh, par rapport ak li ñu génn Pape Djibril Fall wax na ko léegi quatre-vingts morts ñaata lañ yàqal seen seen alal euh, ci yeneen réew dañu waroon nekk ci commission euh, droit et réconciliation wala yu ne mel pour jubalewaat le peuple sénégalais est-ce que nekkul ne loolu mission la boo xam ne tey yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen bokk ci élection législative yu 17 novembre tamit ngeen jubale askan wi ñu jóge ci situation yu mel nii. xeexal sa askan fu nekk loo xamante ni mooy dajale sa askan te ñun jóg ci xeexal suñu askan moo tax boo seetloo plateau yi dafa soppeeku plateau yi nekkoon na plateau yoo xamante ni tey bari na ñu bari ñu nekk ci nguur gi ñu leen di wooye ay activiste ñu leen di wooye ay syndicaliste ñu leen di wooye ay lanceur d'alerte ñëpp tey ña nga biir ah, Dakar Arena. costume climatisé bëgg a wëlbatiku di fenaat sénégalais yi. moo tax ñun ñu toog fii ñu toog parce que ñun li ñu ñor mooy senegal askanu Sénégal rek laa am lu may waxal fi mu toll nii te li ci ëpp importance mooy jeunesse bi bu ngeen demee ba nit ngeen di ko màjjaalal muy wut dara benn ngeen ñàkk ci seeni moroom ci am yaakaar ñaar yaakaar ba ngeen amoon ngeen gën di ci ñàkk seeni morom parce que géej gi tey ay cimetière la ñett bu ngeen bëggee yéen ci seen bopp taxawaalu ci marché yi di wut dara sax du ngeen gis dara juróom tey kooku wëlbatikuwaat di leen wax yéen ñi seen loxo jotul seen ginnaaw te moom ay doomam seen loxo jot seeni ginnaaw ay jabaram moom mi doon kaas wit witu Macky Sall ya tey lu mat fanweeri huit huit ñoo koy topp ak cortège bu gudd ba pare mu wëlbati ko di leen laaj li ngeen yor kon xoolaat leen seen bopp parce que seen waajur yi dañ leen a soxla. Mhm. te moom wékk ko fenn lu dul ci jëmmi boppam. waajooju ñuy wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko kese respecté wul kenn parce que bu respecté woon kenn dina respecté décret Bassirou Diomaye Faye dina respecté kaddu Bassirou Diomaye Faye mais Ousmane Ousmane kese moo tax yéen ña ndaw yi ko topp xalaataat leen ne ñun ñi toog fii duñu bàyyi xeex te duñu bàyyi di leen xeexal te ak lu ngeen ñu mënti wax man de Seydina Muhammad laa lay waatal sallallahu alayhi wa sallam booye boo ñu yor paaka sax di ma xaar ci mbedd mi pour daggate mais xoolal du tee ma wax leen seen njariñ parce que histoire dina dellu siwaat ne leen diw de yéen a ko def nangam waaye yéen dong nga taxoon muy wax te bi may joxe alerte ci Macky Sall lii moo taxoon may joxe alerte mm-hmm. bu ma ñëwaatee toog fii di joxe alerte na leen leer ne ñoom rek ñoo tax ñuy joxe alerte effectivement mën na doon tamit ne dañoo doon ay jeunes rek yu yu gëm ba léegi seen seen seen projet merci euh, c'est ça la démocratie ñu jël Nafi euh, Diallo bokk ci parti démocratique sénégalais bokk ci ñi yor li nga xam ne mooy euh, communication bi intercoalition takku wàllu moo fa nekk ñi ngi lay nuyu soxna si asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi nuyu sama frère Assane Diouf. mon collègue euh, Pape Djibril Fall. Mhm. ak ñi fa nekk ñëpp yéen ñu ngi ci animé plateau effectivement député nga euh, ca assemblée nationale euh, donte ñu ngi waajal beneen élection en perspective euh, la ñu gis tey li xew mu doon ne éternel peut-être recommencement lañ ko mën a waxee bu fekkee considérer lutte yi nga xam ne moo indi régime bi en place lan moo war a doon seen taxawaay par exemple à l'assemblée nationale pour ñu éviter des situations pareilles. avant ñuy yegg sax ci assemblée nationale. Mhm. wala élection dafa di am yoo xam ni sax du élection moo tax ñuy wax. c'est de la démocratie démocratie boo xamante ni suñu ay père fondateur suñu ay euh, euh, kilifa ñoo ko xeex ba obtenir ko il est inconcevable que tey jii ñuy tere sénégalais mu aller et venir euh, gaan n'a pas fait d'appel à l'insurrection Bougane n'a pas demandé à déloger le président de la République Bougane waxul dara loo xam ne lu dul dama fekk dama am naqar mm-hmm. parce que gis naa ay population yu sinistré mu ne day dem seeti leen indi leen assistance moom coalition sàmm sa kàddu ñu ne léegi du dem loolu moom c'est inadmissible c'est à dénoncer c'est pas acceptable loolu mooy débat bi mënuñu tere un sénégalais muy dem di ñëw lii ñoom waroon nañ ko bañ man foogoon ni ñii bu ñu toogee question de liberté ak de démocratie du am dootul amati problème Sénégal hmm. mais lii ñu gis c'est à dénoncer ma dolli ci leneen. waay euh, euh, tey jii. Mhm. nan la ñuy jàppee ay nit di leen maltraité comme ça te pourtant ils n'ont rien fait am nañ droit dem seeti sinistré yi am nañ droit wax lu leen naqadi c'est une question d'abord de démocratie avant d'être une même une question électorale c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous devons tous ensemble ñun ñëpp sénégalais ñu def barrage parce que lii ñu gis sept mois dañ ko daan gis ci régime yu mais en fin de règne en fin de règne lañ ko doon gis tey ñu koy gis nii à à peine sept mois ça fait peur honnêtement ça fait peur. Hmm. en en tout cas cela vous interpelle madame Nafissatou ah Diallo en tant que jeune présente à à l'hémicycle on ça on doit faire tous bloc au moins. Hmm. pour jël euh, assemblée nationale. parce que lii moom bu ñu ko bàyyee. Hmm. bàyyi ñii am tous les pouvoirs ah ci dérive yu gën a graaw la ñu jëm. voilà dérive yu gën a grave yi la ñu jël c'est inadmissible effectivement c'est inadmissible qu'on arrête des gens parce que dañuy dem pour pour pour dem seen merci beaucoup waxuñu fi dara loo xamante ni mhm. mën na tax sax ñu ne def appel à l'insurrection mhm. wala dañuy diri Macky euh, euh, euh, le président Diomaye voilà merci beaucoup Nafissatou Diallo ni ma ko waxee oui oui ñëpp taxaw uh-huh. que lii moom kenn kuy sénégalais même ñoo ñoom les militants à eux ne devraient pas accepter ces actes qui sont en train de faire le tour du monde mi ngi wër fépp ci àdduna donc attention voilà merci beaucoup Nafissatou Diallo honorable député bokkoon ca bokk ba tey sax ci parti démocratique sénégalais nekk ci euh, coalition bi nga xam ne mooy wattu wàllu wattu wàllu noonu la daal san bu président Macky Sall ak candidat Karim wadd bu parti démocratique sénégalais je pense que il nous reste de dix minutes damay jeexalee ci li ma doon wax Assane léegi Pape Djibril mooy ni ñu ko gisee Côte d'Ivoire Gambie ba ci Guinée bi sax am na ci bu fekkee euh, ci processus électoral dafa am des décès des morts wala frustration wala wax au Sénégal dañuy gis ñuy def des comités de de réconciliation ak yu ni mel est-ce que jamono ji soxna euh, Sénégal euh, tollut foofu bu ñëwee ba gis ne ci diggante politique kii fii la far kii fële la far même des familles se sont se sont disloquées est-ce que cette mission là aussi n'incombe pas à à yéen ñi nga xam vous êtes les acteurs. xam nga ci élection présidentielle bi bi ñuy ñëw campagne bi ñu nekkee ci campagne bi candidat yëpp dañu d'accordoon c'était à l'unanimité je ah. parle sous le contrôle des acteurs ici présents. mooy réconciliation nationale. loolu dafa nekkoon au cœur de la préoccupation moo tax man dama ne. sànq tudd na un état pastéfien may cité Alioune Tine. Alioune Tine euh, dañoo nekk ci benn démarche pro ou anti Pastef. Mhm. à te la dernière doguma la Pape Djibril mooy la dernière information mooy bàyyi nay cortège bi fi mu nekk nii mu continuer son chemin dugg Bakel. Mhm. le seul absent mooy Bougane moom lañ téye ba léegi au niveau de la ah. gendarmerie. Euh, ah. les motifs outrage lañ koy toppee. bon malheureusement am na benn borom xam-xam bu doon wax ne la bêtise insiste toujours. la bêtise insiste toujours. donc euh, bi ñu ne dañu dañu war a réconcilier Sénégal.